asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës bi ndax vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ñu koy njëkk a gis wéy leen di like wéy leen di commenter également te di partager vidéo yi du ci am solo la gars ñëw wax ci ci li nga xamante ne euh, Sofiane Diop wax na ko ci euh, Sénégal également wax ci Lamine Camara bi nga xamante ne après matcham bi mu def démb réagir na ci loolu lay ñëw mais laata loolu ñi dem ci page publicitaire bi te ñëwaat danga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dundu jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yépp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti sëriñ Mohamed Jaxate yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy sëriñ Mohamed Jaxate andi na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak sëriñ Mohamed Jaxate ñépp nangu nañ xam-xamam ci listixaar ak ñaan waaw sama gars yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu ñëw euh, ci Soufiane Diop donc euh, mën nañoo wax le franco-sénégalo-marocain euh, donc bi nga xamantene vraiment war nañu intéressé jamono yi ñuy wax ak yéen mais moom li mu wax ci Sénégal laa leen wax Soufiane Diop nee na euh, Sénégal euh, pays la boo xamante ne vraiment c'est un très beau pays boo xamante ne yàgg na fi ñëw ci ay vacances nee na papaam yàgg na ko fii indi donc moom kese donc pour mu ñëw découvrir pays bi découvrir culture bi nga xamante ne mais moo ngi fii ci Sénégal donc mais il a trouvé que ne pays la boo xamante ne ils sont riches en culture donc culturellement ils sont riches vraiment donc mu nekk loo xamante lu am solo la Soufiane Diop wax ko ci euh, Sénégal en tout cas euh, Soufiane Diop tey ji aujourd'hui mën naa wax euh, Sénégal gépp war nañ ko mën a soxla mu ñëw ci suñu équipe nationale Sénégal parce que war naa am lu ñu mën apporter parce que c'est un excellent jour, un jour très talentueux boo xamante ne vraiment amatul lu pour prouver fu lui parce que wane nako fele ci Monaco aujourd'hui il est en train de le prouver euh, au LGC Nice même si que sax cette saison c'est un peu difficile mais voilà mi ngi tenir donc mais également euh, qui di Lamine Camara la révélation sénégalaise bi nga xamantene ne mi ngi toj ak istanbul fele ci FC Metz donc qui démb il a fait un excellent match mu nek première match am ak FC Metz donc mu wane bopam bu baax mais après match réagir donc mu vraiment adaptation bi mu def dafa parce que l'autre tax mu yomb que ay coéquipiers ñoom adapté donc conseillé ko également biñ ne ko da ngay titulaire nee na wax ko ko annoncé ne mais xam que ne bu donc wane boppam ci entraînement xam na ne lépp dina ñëw te nee na ci tànk yooyu noonu la nekk dafay liggéey gën a liggéey incha allah pour jàppale clubam bi di FC Metz ngir mu mën a yéeg fële ca Ligue 1 euh, française ba donc mu nekk ay cadres yu am solo yoo xamante ne Lamine Camara démb yëkkati ne ko après seen victoire kon leen leen loolu weleen di like weleen di commenter jaa ngeen jëf